pouvoir mooy outil pouvoir ku outil pouvoir da ngay am ay nit mhm. donc pour man la condition première avant nga créer nga créer parti politique c'est comme le pa au moins ñu ne waaw il faut nga nga jaay au moins dix mille cartes membres boo jaayee jënd carte membre su boobaa ñu jox la soxna récépissé su boobaa boo demee élection bi nga représenté dara mais xëy rek créer parti politique pourquoi pour rejoindre pour pour rejoindre pour ñu ki nekk si gouvernement voilà ki nekk si gouvernement le président ah. daal di la xëcc ak yow ak sa mouvement bu la wala yow ak sa parti politique mm-hmm. donc daal di euh, tax parti politique bari on mm-hmm. dénombre euh, de de 300 partis politiques plus de 300 partis politiques au Sénégal. est-ce que parti yu bari aussi te am moo tax moo waral tey coow li bari. waaw coow li dina bari te dina gën a bari. fekkente ni euh, xoo bu baax a baax nu ñuy créer parti parce que man damay xëy rek nekk naan damay damay damay def politique daal di créer parti politique pas pour euh, jéem a nekk président de la République parce que loolu mooy nekkoon en tout cas objectif euh, des partis mais damay jéem a teg sama mouvement yëngal sa saaga fii yëngal fii tuuti pour le président gis ma daal di xëcc ma ci ci wetam ma nekk ci ma nekk peut-être ministre wala leneen. c'est c'est c'est un moyen pour avoir de l'argent en la la création de beaucoup de partis politiques. déjà kon balaa Thiel balaa ngay ñëw ci euh, politique bu fekkee asufal ñu ci ligne bi ñu dugal ko waa ci. mu mel ni asufal jàpp nañu Thiel ñu bàyyi ko. waaw euh, comme euh, lu ñuy wax rek xam nga ñoom déjà amuñu déjà tey euh, parti politique moom euh, politiciens yi li ñu gën a bëgg mooy euh, ñu ñu ñu massifier seen seen seen seen parti tey jii mën nañu yaakaar ni bu fekkee tey ñu ngi vraiment donc ci benn avancement ñu ci dox bu baax a baax ba ñëpp xam ne donc mën nañ jàpp ne tey jii lépp loo xamante ne déjà donc parti ba nga ko def wala leneen mën nañu yaakaar ne tey mën nañ am ne au fait lu mel noonu beneen mooy. ñoom yaakaar nañu est-ce que astu tey mu dugg ci parti bi wala est-ce que Thialla mu ngi dugg ci parti bi et cetera donc kii lan la non ñoom nu ñu maanaam euh, maanaam réélé seen i seen i seen i ligne rek comment dire seen parti nu ko mën a élargir rek dinañ ko def tey jii yaakaaruma ni tey toll nañ foo xamante ne ñoom ci seen i bopp dañuy xool kan moo dugg kan moo dugg. ñoom carte lañuy lijjanti lijjantiwul leneen ak leneen tu as en fait am nga sa carte d'identité am nga sa carte électeur donc ça va carte d'identité sax sa farataal ko li ñu gën a farataal mooy donc carte électeur beneen mooy tey jii euh, comme lu ab wax tey jii da jiite benn benn maanaam benn parti nga jote kenn parti bi yëpp jote moom parce que dañ naan déjà bu fekkee noonu nga tey ah fa maanaam tey ak suñu njiit ñun dañuy noonoo ak yow c'est pour cela am na ñoo xamante ne euh, li may en fait li may déplorer bu baax mooy ñi nga xamante ne daanaka ñoom comme trouble rek maanaam comme euh, comme ay xar rek lañ maanaam fu ñu leen jëmale rek ñu jëm fa te il se pose même pas la que genre lii baax na ci ñun wala baax na ci ñun problème dañu ñu bari ñu bari ñu bari gis nañu tey jii même ci référendum bi am na ñoo xamante ne genre Macky Sall lañ àndal mais genre Macky nee na oui ou non ñoom ils votent oui sans pour autant savoir exactement pourquoi parce que déjà ñoom Macky lañ mu def baax ànd ak nit c'est pas question que dañuy ànd ak moom parce que ay ay maanaam ay idéologie wala ay déontologie non non parce que dañoo bëgg nit ki point donc lu nit ki ànd ci ànd tey jii bu fekkoon tey euh, maanaam ay maanaam ñenn ñuy ànd ak Sonko tey demoon nañ ci Macky Sall di nga gis itam ñu doon xeex Macky Sall dinañ parce que déjà Sonko moo ànd ak moom. Mm-hmm. cela signifie que il se pose pas la mm-hmm. bi mooy bu fekkee tey vraiment donc xalaat ne fu mu ne nii Idrissa Seck ak ay ñi nga xamante ne vraiment donc xam nañ ni du Idrissa moo leen a jóg mais tey jii gis nañu vraiment war nañ ginnaaw Idrissa Seck ñeneen nag li nga xamante ne vraiment donc ils sont avec lu Idrissa Seck def parce que Idrissa Seck jëlul décision moom parce que dégg ko aussi donc ci ci déclaration bu def moom nee dafa waxtaan ak ay ñoñam waxtaan ak ñi nga xamante ne daanaka moom la siq ak parti et cetera donc ñu soog ko nee waaw kon lii c'est une très en fait c'est une très bonne décision mu ne voilà donc Astou. allo allo Astou Fall ñu ngi nuyu. Eh, eh, naka suba si. allo Asou. Euh, waa Leral nuyu naa leen. Euh, ñoo ngi lay fay. <laughs> Euh, soxna Asou la ngeen mën a jàpp foofu tey ca conseil économique social et environnemental. ñu ngi fii incha allah comme ni ko waxee conseil économique social et environnemental. Hmm. fekk ci li nga xamante ne moom 10 heures lañ joxe rendez-vous mais nit ñi xam nañ ne dina xaw a am tuuti retard léegi la boo xamante ne ak képp koo xamante ne si ci kanam tuuti lay doon ñu lay jaajëfal bu baax a baax yaa ngi koy Siyasu Fall euh, ñu ngi lay bu baax a baax di jaajëfal itam Serigne Fallou euh, ni ngeen ko dégg euh, téléspectateur Leral TV dara du leen rëcc foofu ca conseil économique xam ne rek daal dina fay dina ko waaye xam nañ ne fu mu nii Papito mu ngi ñëw ci kanam mm-hmm. te Papito xam naa ni moom it am na ay jàngat yu am solo yoo mm-hmm. xamante ne donc mën na cee jàngat yi daax moo tax it li ñuy def rek mooy euh, balaa dara di xaw na dañuy jéem ñu ne tàggoo mm-hmm. ah, donc bàyyi papito moom mu ci ay xalaatam yu am solo mm-hmm. mais mais balaa maa dem juste donc pour wax ne tey bi ñu déggee vraiment donc Astou Fall mën nañ ne fu ne nii donc événement bi ñoom ndawaluñ ko ci seen i bopp mm-hmm. donc ndawaluñ ko du ay autorités yoo xamante ne daanaka moom ci ay waxam déjà commencé nañ faa te itam donc événement bi léegi mu commencé comme que aussi donc on sera en direct donc euh, les chers spectateurs donc ngeen xaaral donc kon kon voilà kon nuyu chers téléspectateurs yéen ñuy safoo leen seetaan ci Leral TV di leen jox euh, dig daje ba ëllëg incha allah. Euh, euh, merci Thierno ma bàyyi daal ma daal Voilà, donc ça a été un immense plaisir de partager avec vous avec plateau Thierno maa ngi lay sant di la sant yow Thialla mais également les téléspectateurs téléspectatrices de Leral TV donc ñu leen yem foofu ba suba incha allah merci à vous merci Thierno avec la complicité de la région dugal benn page bi dugal ki nga xam ne mooy Papito Kara ak Kumba. Kumba. Kumba. Kumba yow nee na même bi doon lay dugal wala wala. dem ak day wax ci idi. Kumba mooy mujjee day wax ci idi. yow ah. yaay mujjee yow yaay tëj sant day wax. day dugal Papito sa élève kii bi RDC du wax ci idi. non waxul ci idi de. ah. gaaw leen gaaw leen yow sant ngeen dem leen ngeen liggéey gaaw dem leen dugg leen. yow bàyyi ma day jàllale RDC. waaw wax si après si bi Papito dama toog ne. léegi Papito nañ dugg RDC pare nga commencé bu ma doon ñëw sànq. 3 minutes rek. ah munul munul naa leen si jàppale kaay dama dama du fekk dama. Fama taal téléphone Fama taal téléphone. demal Ousseynou ñu eggale noonu liggéey nañu noonu pusaar bi yaa ngi mais gis nga wax yi demal daa ko jox bu téléphone. bu paree nii rek bu paree nii moom. moom ñuy si dara. allo. waaw. making for Konyare Vikurana. Wizara aliyachapa. Wazari gani yuko mantero? Jana kuziwa. Mantero mbinyo mbinyo. Lai, jana kuziwa. Minsi, si rezi bu. Rezi la ko, no rezi. Ah. Lolu kale gore mo de. Eh, day day yàq communication bi Papito na wax après Kumba tëj. Papito na wax ci NDCM. dugg ci ak Idi voilà day bu ñu dugalee santé heure bi rek dañuy daw. dañuy yàq ndombal <laughs>

neuf heures passées de temps bi dafa nekk boobu tey ñu ànd ak yéen ci seen émission matinale préférée comme ni ñu koy defee yéen invité leen ay information yu wër comme ni ko duppee ces formes à temps réel comme ngeen ko gisee ki nga xam ne mooy Papito ak Coumba daal nañ ñu fekk si ci plateau bi Papito maa ngi lay nuyu. Thiara maa ngi lay fay. ça va alhamdulilah. wala ñu téléspectateur yi. di nuyu téléspectateur yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan si suba ba léegi di leen ziar bu baax a baax. Coumba itam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Thiara. ba jàmm la yow. jàmm la yow alhamdulilah. ci kanam tuuti dinañ ànd ak yow di santé. santé incha allah comme ni ñu koy defee jeudi bu nekk. ci kanam tuuti lay doon Papito ma bàyyi la nga wax ne nga ñu tey jëm ci RDC bi. bi tey ngi àddu ay kàddu jëmale ko si bi nga xam ne moo moo mu nekk loo xam ne lu jaaxal kilifa yi la jamono ji RDC bind nañ si ba doyal xanaa régie bu fekkee mi ngi baax ngeen jox ñu élément bi ñu dellusiwaat si plateau bi. régie bu élément bi jàppale. kër ga sës na. waaw ubbi nañu buntu bi noonu ba mu jeex. si ban tool ngay tijjee ban tool. parce que soo na la yow jamono jii may wax ak yéen kay waa Caaroy ci xott nan la ñu toog na la yow lu tolloo ci ñaar téeméeri waxambaane ñëpp di ay mool demoon napp ji waaye ba ñu ñëwee seen loxo yaa seen kanam ñenn ciy génnee ñuy picc kenn mënu laa wax feebar boobu ana ban feebar. ma ne la yow seen loxo seen kanam ba ci seen tuñ ya kenn mu koy xool sa yaram bi def ba mu fees daj ñu ngi ko jëlee si biir ndox mi ci géej gi ma ne la yow géej gi kay yematul di rey waa dem man ci boole ay feebar yoo xam ne kenn mënu koo wax waaye bi xanaa askan wi nekkul na ba tey yi nga ci wax laa bëgg a xam. laaj ko yàqu na nga laaj ko waa RDC ñoom na kenn ku nekk bind na si ñu dem yeneen leen commentaire. ñu doole ko Kumba si nee na waa yéen ngeen fam ni nguuru Macky Sall gi ñoom demuñu vacances. ñu jàll si Jalista Kebe nee na jëli si boppam nañ ko firiiral Macky Sall bu ko defee ñu laal si tuuti soble ak piment. ñu jàll si Manka bu xarañ nee na subhanallah merum yàlla kay bu ko kenn ñaan ci réew ñu jaade ci jibril noone nee na moo yow lii commencement la rek makki doolli ñu makki doylu ñu ana waa rek ay eh, action seen souffrance est-ce que ñoo la faral jaade ci awa yow nee na man de je règle le poisson et la fruit de la mer jaade ci Cheikh Moustapha Sow Bachir nee na est-ce que du tubaab bi ñoo ko def ci géej gi li wóorul dara ñu jaade ci El di defar spaghetti ak tay moytu les poissons

janvier